kii di bokkoon ci manifestation bokk na ci bokk ci ñu def rek moom ci mbedd bi jàpp dugal ko di tëj ko juróom-ñetti weer j'en profite pour pas sama xel dem ci Abdou Mbacké Samb mi nekk Tamba. Mhm. ñu ko tëj ci juróom-ñetti weer ci kaso yi bu génnee rek on va passer ça pour perte profit dans un état de droit. non nee nañ demeewul noonu nee nañ liberté provisoire lañ accordé nit ñi dossiers yi benn fayu ci. mën naa la mën naa la limal mën naa la limal vingt cinq dossiers yoo xam ne et liberté provisoire la dafa jaaree lépp tàbbi géej. loolu lu yàgg la du fi Maodo Awa borom xel nga li ñu seetaan ay borom xel lañ. xam nañ li xew ci li mu ñu wax sànq mën a jàpp. parce que nee na c'est des dossiers yu ñu yóbbu ci juge bi mu apprécier xool décerner. gis nga te du yëpp sax lan la nangu. gis nga posture républicaine bi bi ay taal taal am. ñu mhm. opposition lañ ko war a am. c'est un ministre de la république bu wax dañ koy jox dayoo beeg gëdd beeg yëpp. Mhm. mais ñun bu pare <laughs> ñu xool ñun li ñuy dund lu mu doon ak ni ñu koy dundee. Mhm. ak kan moo tax ñu koy dund. boo boole ñett yi da ngay xam ne jàpp nañ koo xam ne yoonam dem ci woon dara ci mbir mi ñu téye ko fa juróom-ñetti weer mu génn mais dans un état de droit su génnee ñu wóor na ne kii defutoon dara au moins war na mën a song état pour ñu dédommager ko au moins. Mm-hmm. dans un état de droit boo jàppee nit au moins da nga koy taxaw nga laayil ko ñu laayil ko da moo def li defoo lii. ah nee nañ yëf yi fayul de dafay continuer liberté provisoire tey la on est le 20 février. juróomi euh, fan ci élection yi. Mm-hmm. élection dina fi jàll ba dem ñii. kenn du ko waxati lépp day jaari fii tàbbi géej mais du fa gën a ci réew mi nag du fa gën a amoon dafi daan am